assalamu euh, asalaamaaleykum euh, bo leen gisee ma defat bi sorti mu am luñu nakari naqari ci Touba élection législative yi passé ay bureau de vote yo xamante ne dugg biñ duggé duggee fekk ñu fa bulletin ñi ñu bëggona voter Touba nak 2 millions de personnes ñoo fa yeewu boo gisee ñu jël autoroute Ila Touba bi lal ko fa xamnañ ni. ressource bi am biir Touba entre Touba Dakar amul Touba si Ziguinchor amul Touba Kolda amul Touba maatam amul Touba amul Dakar feneen Touba Dakar moo mel noonu parce que fa la ñuy jaayee gerte fa la ñuy defee lépp lu waay bëggati mu dox Touba nga koy jaay li màggal gi de wane na ko 2 millions de personnes fu ñu yeewoo yeewoowul feneen ci Sénégal parce que Dakar bu dee Dakar presqu'île la dëkk bi mu mën naa ba Touba xeyna ay usine la ko ëppalee ak ay zone industrie wala leneen comme nag ay doomi aadama fa yeewoo yaakaaru nu ku dul Serigne Touba am droit ci réew mi war a bokk ci ñuy fal ak ñuy folli nañu xam ñaata bureau de vote mooy nekk Touba ñu recensé ko wax ko nit ñi parce que li xewoon ci législative yi bëgg mu amaat fa parce que législatif yi passé am na ñu dugg ci biir bureau de vote gisunu fa seeni leader yi nga xamante ne moom la ñu war a voter loolu nag lañ bëgg mu jeex na dégg bu mu amati. surtout na jëkk tey université ba léegi nekkatul centre. université ba nekkatul centre nañ ko jël ñu décentraliser centre yi même bu dee dañ naan Dakar ngeen di voté see yéen waa Touba. nañ ko wax nit ñi mu leer kenn ku ne xam fu muy voté boo liggéey président bu fant ka ko.